wextalu dee nee ñu bi nga xamee ne yonent yàlla isa alayhi salaatu daf daan dekkal ñu de am na jëmm ju ko mas ne ñu ngay dekkal dee ba ñu deewee dafa yàggul waaye moom la bàmmeel bu ma xam boo xam ne doomu yonent yàlla nooxin la woon niñ ma ko tekkalee nga dekkal ko ba mu ko dekkalee ba mu dundee ba mu jógee waaja ba muy dee la woon waaye du mu dekkee bi mu moom dafa bee jaaw mu ne ko waaye la bejjaaloo mu ne ko dama ma déggee sa woote bi dama tiit ndax defe ne saa taxaw mu ne ko yow de xanaa yàgg fi mu ne ko man de nangami junni at am naa ko fi mu ne ko na dee mel mu ne ko seedeel na ba ma fi tëddee ba tey jii de waxtanu dee dañu ci man waxtanu dee woowu raglu malaayika yooyu ñaawaayu jëfi doomu aadama ci jëf yi nga xam ne jëfi may la wala jëf ji rafetul la mooy gën a ñaaw melaw malaayika woowu ñetti mbugal yooyu nga xamne moy gatt lu doom adama ci waxtu rocc ro te duggagul ci bàmmeel doyna di xalaat fu nit ki tollu te fi ci aduna kat la nit ki di top tolli ko musal ci yoyu le ndax jëf li rafet ya bu ko waji dee gis mooy dàq àjjana day ci sax ro gi baña genn ndax mu baña tagok jëf yoyu muy jakar lol ndax rafetay bi muy rafet ak xet xet yu neex yi mu xet ñu xeeñ ak bànneex bi ak seddaay bi muy sedd te maram woowu dañ ngir xet gi nga xam ne rek xeeñ na ko ci xetu jëfam yu rafet yooyu mu jëfoon xam ne diggante boobu yenn secret ngi fi yoo xam ne kurub suñu borom xamu ko jaam bi ci jaar sax du ko mën a misaalati suñu borom bari na ay secret yu nëbbu yoo xam ne def na ko ci biir jaam ñi te fu ñu toll ñu ngi rombante ñoom yi ci des nekk ci seen biir ndax xolu doomu aadama téere ngi ci bo xam ne jëf lepp bind nañ ko ca waaye xijaab maanaam cuuraay yi ko yir tax na du ko jang a jàng bu keroogee bañ ne fa kashafna an ka xitaaka fa basaru yama xadidun bu keroogee bis la jall jàll téere bi ndax ray yi nga xam ne yir ba du gis secret yoyu moy attache liko ko ak suuf liko ko ak aduna ndax aduna madala manam matière matériel nak ak esprit dañu féewoo manam li ñuy wax antagoniste lañu ndax ro ci bopam ak jëmm ñaar ñu féewoo lañu fekk na waxtu bi def ko dul mat waaye diggante li nga xam ne moo leen diggale mooy arruux alxayawaan yi li ñuy wax jismun latifun yaxya bihi alxayawaanu moo di suufal vital vapeur bu woyof boobu nga xam ci finesse am mën naa am rapport ak dëgg-dëgg ru nga xam ne mooy esprit te woyof woyof boobu mu woyof itam teewul am na tuuti ci matériel ba tax na man na ko jokkale jëmm mi nga xam ne matière la nga xam ne tax na ruu ak jëmm mën a diggaale ci waasitaam maanaam ci moyen ruu euh, boobu nga xam ne mooy ruu dund nga xam lépp lu dund am na ko waaye ruu ma nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bokk malakoot way royaume spirituel de Dieu maanaam nguur ruuxu suñu borom nguur nga xam ne loo mën a làmb daj ko wala nga mën ko xool gis ko bokkul ak loolu nga xam ne mooy secret yeeg mbóot yi nga xam ne ma nga fa suñu borom roo ca loolee la jóge ñu ko bind ci ni ñu bindee malaaka nga xam ne bokk na ci meloom xam te du fàtte man te du tële teewandoo fu yaatu fu bari bokk na ci ay meloom yoo xam ne ñi ko xam sañ ñu ko wax ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam suñu borom mayu ko woon mu waxtaane ruu bi ko ko yahud yi de laaj ruu moomu nag dafa xamoon boromam bëgg boromam nam ci boromam dafa suñu borom bindee te tàbbale bu ko ci yaram mooy yow ma alastu bi rabbikum ba mu leen dajalee ñoom ruu yëpp ne leen ndax du ma seen borom ñoom ñëpp gannaaw ruu dafa xam boromam ñoom ñëpp ne ko ah kay bala yaay suñu borom ca gannaaw bu Muhammad sallallahu alayhi wasallam njëkkee wuñu jaam ñëpp wuñu topp ci gannaaw yéefar yi wuñu te sañuñu ko bañ képp koo xam ne boo fi ñëwee da nga gëm wuñu ci sa coobare ak bànneex ba mu ne ñii day way fen lañu ci li wax ne ñii day way dëggal lañu waaye danaa leen nattu indi leen ci àdduna fabru dugal ko ci yaram mu mel ne ku ñu tàbbal ci kaso boo xam ne amul bunt amul palanteer bu jant fenkee doo gis leer gi du mën a agsi bu sooyee doo ko xam ruu mel noonu nag di ko tumuranke ci biir yaram ñuy dundal yaram di bànneexu yaram mooy naqaram mooy tawatam nga xam ne ruu kon bi mu duggee ci biir yaram dafa tawat kon doomu aadama yëpp ci kaw suuf di ay malade adduna di hôpital yeneen yi di médecins yi nga xam ne ñu a faj jaam ñi dal di indi cérémonial yi nga xam ne moom la jaam ñi war a jëfandikoo muy seen i ordonnance faj leen bu ñu wér roo lan moo di yërëm mooy mu delluwaat ci meloom meloon ci cosaan bu ko defee bu sellee ba nga xam ne amul benn tâche amul benn gàkk mu mën a dellu ci boromam mën a bànneexu ci leeri boromam mooy ajjanaam mën a dugg ajjana bu fekkee ne jaam bi nag mooy na mooy yu bari ci àdduna waxtu mooyee muy benn gàkk roo gi mën naa dem ba lëndëm kër wuus waxtu woo xamee nag nit ki mu ngi dimbali ruuxam au détriment de son corps daal mu ngi dimbali roo gi ci li nga xam ne day euh, not day naqaral jëmm ji mooy nit ki ne néewal lekkam ba jëmmam woyof deretam woyof xolam mën xalaat xolam leer muy woor di faral a wéet di xool lu ko yàlla xool rek pour yàlla sax ci gémmiñam roo day gën a dund ni garab bu ñuy suuxat di gën a am kàttan di gën a rëy bu ko defee day gën a jege melowam melowoon ba mu daan ñëw ci àdduna roo yi nag bi ñëwee ci àdduna bi ñu duggee ci yaram dañoo tawat yonent yi rek ñoo des ci seen biir gawaroon am na ci itam yeneen roo yoo xam ne tawat nañu waaye tawat ja demewul noonu ñooñ ñooy awliyaaw yi ak akabirul ulama yi ñu ci des nga xam ne ñoom la seen ruu gën a tawat ñoo gën a aajowoo xeex xeex bu metti jàngoro yooyu ngir mën a wér ndax nit ki waxtu woo xamee ne ruuxam dellu na ci wér ga woon moo di ak muccam bu fekkee ne mu ngi ci àdduna te demagul suñu borom dana ko muril kiiraay yi kiiraay yi nga xam mooy les attaches terrestres ni ki tey jëf yi nga xam ne dana ko jëfandikoo yépp ci àdduna nga xam daf koy xëccaat jëme ci àdduna yi mooy baat yi muy dégg bëgg-bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox yi muy diggaaleel mébét yi muy am noflaay yi muy noppalu nelaw yi lekk gi naan gi bànneexu bi muy bànneexu nga xam ne yooyu yëpp day gën a dundal yaram gi te yaram gi day gën a tëj kasoo ruux gi nga xam ne lu tasawuf seen ñaari an unsur yooyu mooy yaram ak dana delluwaat ba nga xam ne dana jege nam meloon ba ñu ñëw àdduna loolu moo tax awliyaaw yi daañu toll ci jamono boo xam ne bu ñu ñeetee di tuddu yàlla tudd yàlla goo xam ne gii saxoo nañ ko génne seen xel ci àdduna déggatuñu dara dara dara lu leen mën a delloo si xëcc ci àdduna malako day ubbi ko ci seen kanam ñu jànloog ruuxi yonante yi jànloog malaayika yi jànloog ajjana ak safara ak arasa kursi yu mën a di jàng laxul mahfoos la nga xam ne moom la ci suñu borom def loolu mooy istiadaat bi nga xam ne jaam bi dana ko xaroo ci fóot ruuxam balay ëllëg ndax li leer moo di ne siraat dana ko jéggi te siraat du dara lu dul jëfi jaam yi ku sa jëf juboon jaar ci yoon da nga ko jéggi jéggi gu jàppandi gu neex gu yomb gu gaaw koo xam ne sa jëf dëng na siraat yu doon ci yow waxtu woo daanoo fekk na yaa ngi tiim safara ci safara rek ngay daanu kon bu ñu nee siraat mooy jëfi jaam jëf bari na muy walloo doomu aadama waxoon naa fi ñuy roccee rooge nga xam ne léegi gisatul dara ci adduna amatul atab adduna ba tam yaa ngi bokkiku janloog malaayika bi ak fi mu nekk ci barsax te jëf yi di jëk diko di su dekkee ba wara jëgi sirat ñu wara pécé ay jëfëm ku ñuy wax nu mardawi abdullah ibn mas'ud nee yaronte bi sallallahu taala wa sallam nee sun borom dana dajale jaam ñu bindoon ñëpp ñu njëkk ba ci ñu mujj ci benn bis boo xam ne dana leen taxawal béréb ñoom ñëpp ñu taxaw jonn seen nagi mbuqiku janloog asamaan rek ñuy xaar atem suñu borom dana wàcc wàcc aras jëm kursiyu ci biir ay niir yu yaatu yu lëndëm ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaayika jóge aras ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul moom nee nañu abdullahi ibnu omar nee ci aaya jooju suñu borom di wax hal yanzuruna illa an yatiyahum allahu fi zulalin min alghamami wal malaikatu wa qudiya al amru wa ilallahi turja'u al umur yëguñu lu dul yàlla dikkal leen ci biir ay xiinu niir ànd ak malaayika yi bu keroogee ñu àtte jaam ñi mu ne maanaam waxtu yi suñu borom di wàcc digganteem ak mbindeef yi juróom-ñaar fukki junni ci raay moo koy moo ciy dox am na kiiraay yu leer ak kiiraay yu lëndëm ak yu kiiraay yu ndox nee na ndox moomu dana sab sab goo xam ne xoli nit ñi day xoli ko di wadd ndax tiisaay ak xumbaay bi ak lu bi ak métit bi bis boobu nga xam ne doomu aadama bu séenee mbokkam daw ndax ne xëy na bokk gi mu bokkoon nekk ci adduna amel na ko xàq yoo xam ne bu ko gisee dana ko fay ci moom te keroog ku nekk la nga amoon ci lu baax xeeb nga ko la nga amoon ci lu bon naw nga ko ba mu jaaxal la doo bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñuy fa bàkkaaru kenn di la jox boo alxuraan nee na boo boo séenee sa ndey daw boo séenee sa baay daw boo séenee sa soxna daw boo séenee sa doom daw nee na kenn ku nekk am la boobu la da ngay gis mel ne ñu ndax keroog mbugal te màndi wuñu de ne keroog ba naan ay nga la man ay eh, aka neexoon ma jaaroon yoonu yonent bi aka neexoon diw ma bañoon koo def xarit di ànd ak mu bëm yóbbaale ma ci bon bon yi nee keroog la tooñkat bi di mat baaraamam diwu cax ndax nit ci wet te boo fekk na mu réew loo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy neew de waaye wallaay bu ñu deewee daañu yeewu keroog bis bi suñu borom sampee balance yi di atte seen jëf yi keroog sëñ Tuubaa nee na wa yaqa'u al-qisaasu bayna jamma wa bayna qarna li adlin samma bu kéro gé na bi amoon béjjën mbëkk bi amul woon béjjën sun borom dana atté seen digënté dana qiyas dana qisas la nga xamné loolu la ko defoon béjjën ya koy ane woon mu wéki ko saxal ki amul woon béjjën mbëkk ki amul béjjën yi nam ko mbëkké won ba noppi ñu sok leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw xam amuñu bakkar ngir maanu sun borom rek nee na kaw bis bobu day dañu hisab doom adama ci lu demee ne xismiir wala naqir wala fatil ñooñu ngi dama ni ki boo xoolee tàndarma der wu weex wu weex woowu nekk diggante ñam bi ak xoox bi ku ko fabal nit te baalu la ko nga jël ko jëlal ko ko ci lu dul seddu xolam bu keroogee daañu ko xiyaas nga delloo ko ko benn ñu fab ci sa tuyaaba lu tolloog loolu jox ko wala ñu fab amuloo benn desewoo benn tuyaaba ñu fab ci bàkkaaram lu tolloog loolu teg la ko naqiir mooy saal bi du dëgër bi ci boppam fatil mooy boo tojee saal boobu la ci biir te weex te xale yi di ko bàyyi ba sax ban mooy ñi di ko toj di ko lekk doomu aadama nga xam ne bu deewoon ci jihaar suñu borom dekkal ko mu delloo di jihaar ngir ngërëmal yàlla ak noonu yàlla yi ba dee ñu dell ko dekkal ba mu ñetti yoon bu yemal xiyaamee fekk amee na bor buñ ko baalul du dugg àjjana mukk ak loolu mu def lépp te fayul bor boobu le mu nekkoon àdduna moom kër gu romb rek la nan nañ ko def kër gu romb moom dong ñu tax a mucc nee na sa alal ji amuloo ci lu dul li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp ak li nga li nga dëkk ak li nga dawal ci sa bàmmeel lépp lu ci dul loolu ñàkk nga ko keneen a koy moom kon nag dajaleel keneen dara jëru ko nee na perte foofu la mën a yem <laughs> mun na gis nga kon tiiti bis penc ba ni ak ni koy delloosi ci sa di ci xalaat xalaat bu yàgg mooy ndax ki gën a mucc ci nit ci tiit yooyu la mooy ki koy gën a xalaat te di ci gën a def xelam nee na yàlla du boole mukk ñaari tiit ci jaam tiitum àdduna ak mu àllaaxira képp koo xam ne sa xol dalul ndax ragal yàlla di xalaat ëllëg yoomal xiyaam suñu borom dana la def nga bokk ci ñi gën a ñàkk a tiit ñi gën a sedd xol ñi gën a dal xel yàlla dina la ca boole mu ne nag ragal gi lay musal du genn ragal lu dul ragal gi nga ragal yalla bam dox sa digg ak mooy ragal gi nga ragal yalla bam xeer la ci top ko jam jam nak ñu wute lañu keroog bis ba limuy muy tiis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la amri la hiya ahwanu ala al mumini min adai salatin maktuba dunna ci dundam ne titi bis ci ba jeegi sirat taxaway bu yag ba balaa sañuy peesee jëf yi ak loolu nga xamne ak ngirum ag na ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamne ne julli ñaari rakka wala ñett wala ñent ko gëna bis ci mom dal ñu ci sun borom boole ndax sun borom sak na jaam ñoo xamne seen leeru ngëm dara tax bu ñu jéggi sirat safara wuñu tim dañu yàkkamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma sa leer sa leeru xar kanam fay sama safara way mu ni bokk na ci yi dimbali nit ci àdduna ji ñu nekk delloo sa xel di xalam di xalaat tolluwaay yooyu ak jaar-jaar yi jaar-jaar yi nga xam ne yépp faaw nga jaar ci di xalaat dee di xalaat jeexu àdduna ak ni mu ñàkk solo te bañ a bàyyi sa xol mu lab ci àdduna ngir bari ay mébét ak bari bëgg-bëgg foo toll muy sa lépp nga ci rek mébét yi dul jeex mu ne sellal say jëf lante li itam say jëflante ak doomu aadama yi bokk na ci li lay musal ëllëg fuglu yàlla mooy di teewlu màggam gi foo toll jëf jooy jëf nga teewlu ca ne bu teewee dina na ngay jëfe ka gën a ragal tere la ko ni nga wattandikoo jëf jooju ak jëf ju baax ji ngay def ka nga gën a yaakaar gën koo gëm gën koo fullaal digal la ko na nga koy jëfe waxtu ne ngay teewlu suñu borom ni muy jakarlo yow sa dara umbu ko ci lepp loy jëf ak lepp loy wax ngay rus fep fum la téré ngay jéggi sa jéego yi di ca jëm fep fum bañ nga nefa ngay rus ñu di la fa fekk malaaka yi di la fa fekk fep fum bëgg nga nefa ngay fexé ba mu di la fa fekk muraqaba bu yagge moy indi mushahada moy ya-, moy waral sun borom ñori kiiraay yi nga xamni mo dox sa digg kumpa ba lu bari lu ump jaam yi borom di ko wan ngay mom kon na nga wattu niig niigal niig niigal mooy remettre au lendemain bàyyi daal nangam ji naa bàyyi tey ba ëllëg wala naa bàyyi ba noppalu ba beneen yoon jëpp jëf yi topp ji mu doon fu mu la fekk fu ci sa xel demee rek jugal dal ca ndax sëñ Tuubaa nee na wa anna aksara siyaahim xadaa fi naari min tasawufin tawallada la gën a bari ay jooy gën a metti jooy gën a yàggi jooy ëllëg ca safara mooy ñi nga xam ne dañoo sàgganoon julleem rek julleem te duñu takk kon na nga gaawantu jëm ci jëf boykat bi nee na fa ma qada ahadun minha lubanatahu wala intaha arabun illa ila arabi aduna kenn du ci jeexal say soxla mukk mukk soxla su jeex rek seneen jóg taxaw dañ tubaa nee na fa inna lidunya humuman tamnau min alhuda wa hiya la tanqatiu aduna am na itte yu bari yoo xam ne day dox diggante nit ak jub te nee na itte yooyu kat du jeex mukk والموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل محترمة بي داي بيت بي نيو دي تا بارينا نيت مو نيك تك نيت فك مي امون اي سخلا يو خامني مو دوخون ديغنتي مو نيت مو دوخون ديغنتي مك ديف لي مو وارا ديف كون نيت كي بëgg مucc وارنا ديلو سي لول سي خلم وارنا دي توك سي جتا ييغا خامني داني فاتليكو يالا دي فاتليكو ëlëk ndax لولو داي داغي خول داي xëcc خول diko sétal bari na bu nit toge ci jotaay bo xamne waxtu mu fay suñu borom dana far bàkkaar bu mu amoon lépp xolam lëndëm yi ca neewaan yépp dana leer la ca takkoon yépp dana set la mu tàyyeeloon lépp ci jëm ci yàlla dana dañ ak cawarte aku bëggeel aku nam yàlla wuutu ko fa rafet na muy yër téere waara téere waaraate yi ak di déglu way waaraate yi nga xam ne li ñuy wax dëgg la ci ñoom ndax ak waar bu jógee ci xol ci xol lay dugg waaye bu fekkee ne ci lan nit ki rek ci ay tuñam la génne ci nopp rek la yem kon di seet béréb yi mën mi maanaam béréb yi nga xam ne nit dana ca jëme jële fàttaliku yàlla fàttaliku ëllëg fàttaliku itam sabab yi nga xam ne mooy waral texe fa la koy jële bu defee loolu ci lay jëlee texe gi nga xam ne ak ak texe di dootu amati mukk gannaawam jublu gi ñuy jublu ci yàlla wan lépp leneen gannaaw ci loolu la koy mën a jëlee سنت بانينا لو كنت توقن ما ياتي امامك من هول ومن سكرات من كل ايقاد كن لما اشتغلت بدنيا لا بقى عليها بجمك المال من قاسم ومن دارك نان سفا كنت ني بيو سي كانم وولو نكو غيب وولو تي اي تيب اك تي سكرات دي بوكو وولو نكو غيب وولو كون دو سخلا و ادنا جيغا خامن دو ديس نيت داغ سي جوغي تا ادنا سي باكم داي جيخ تا دو ياغ ngay dajale alal rek jëlé ko fa gëna sori ak fa نانا لا تغترز بحطة من أن تتركه للوارثين كإخوان وأغدان بل ورمك شعال الجيغة همنا دانك بايك سيدون رك إن الذي يمسك الأموال محتكرا لم ينتظر غير تخسير وحرمان كيف كو همنا داي داجل علل ديكو باني خو ديكو بد ديكو فاتل كو رك ديكو خوال ديوت نمو يوكو نانا دو خارو درا درا درا لدن يالا خانك كو رك تبان مريكو ولا مبال مسيبا دو بجد يالا خانك كو kam xaafilin wal mën naa yaa fooqa jun juni law yaalamul xayba xusnan faaxa min laani bari na aji sàggan joo xam ne mu nuur ci sàgganam rek fekk dee ngi ko tiim ci kàngum batam bu fekkoon ne xam na la xew kon dana am tiit dana ko rey war na jaan muy sàmm cër yi cër yi ko yàlla dénk yëpp ndax cër bu ci nekk dafa jàkkaarloo bunt ca safara jàkkaarloo bunt ca àjjana ndax ku moy safara rek aljana nga jëm waxtu wa xamé né cër bi buntu bam jakkalo ci safara moy nga ci cër bobu ci buntu bam jakkalo ci safara ngay duggé lolu señ tuba wax nako sahbatu ahli alkhair andak ño xamné ñu dëggal leen di tan waxon na né xol dafa paré pour ñu ko mel rek mu meleni melni pat bobu ñu moñ ba mu noy wex tal amul wenen melo amul ben forme du neug rek béréb bi mu nekk la fa ne lam ko wàll neewoon naa bi nit ki ak ñu fi nekkal li fi sax ci suuf ak seen diggaale yi ak xew-xew yi xew ak lii jokkale diggante suuf ak asamaan xew-xew yi jóge asamaan di wàcc ci suuf noonu béréb bi mel nga xam ne yooyu yëpp ko ko melal béréb boobu nag moom rek mooy jëfandiku ci xol waxtu woo xamee ne aji yare aji yeete aji waare aji jubale taxawu fa noonu milieu boobu mel rek noonu la xol ba di mel tax na kon nit ki gannaaw moom milieu lu am solo la ci moom te mooy melal xol bi doomu aadama yi seen bopp ñoo war a fexe ba créer milieu boo xam ne mooy milieu bu mucc mooy milieu bu texe mooy milieu bu njub buñ nekkalee ñoom ñooy texe bu fekkee ne nag defuñu ko te xol buñ ko neenalee rek seytaane daal di dugg ndax ñaari bunt rek la am bunt bi mooy buntub leeru yàlla bunt bi mooy buntub seytaane waxtu woo xamee ne leeru yàlla duggul ba fees ko rek ndax xol mu ngi mel ne kaas bi nga def ci ndox wala jaww air bu dugg ci waxtu ci ndox nekku rek jaww a koy fees ndax du toog mukk te dara néew ci naka noonu xol du toog te dara néew ci faw bëgg yàlla wala bëgg àdduna waxoon nañ ne bëgg àdduna ak bëgg yàlla ñu mel ne ndox ak safara ñi nga xam ne ndox ak safara duñu mën a bokk ci benn ndab te dara doxul seen diggante bëgg yàlla ba mat sëkk ak bëgg àdduna ba mat sëkk duñu noonu la ñu mel duñu mën a bokk mukk ci lenn ndab yàlla ak àdduna ñu mel ak sowu loo gën a dox jëm penku gën a sori sowu loo gën a dox jëm sowu gën a sori penku itam gannaaw noonu la ñu mel nit ki te ni mu mel moo xol bi réew mi mu nekk li fi xew ak li fi am ñëpp nit ki moo ko nay melal nit ki moo koy nay melal moo lim fi fekk nit ki war na defar kon béréb bi wala bu fekkee ne mënu koo defar ndax kenn la te ñu ci def ñëpp defaruñ ko muy tànn ñi nga xam ne ànd ak ñoom ñoo koy jëriñ te duñ ko lor muy tànn ñoo ñu farata la ci ñoom ndax suñu borom wax na ci alquran الذين توفاهم الملائكة بظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها أولئك ما يمجانون وسعا مسيرا قالوا خمنا ملائكة dañoo فات سيدي روح ñu doon nit ñoo xam ne dañoo texee di ndax texee di gi ñu texee di ñu leen ëpp doole ëpp leen kattan ëpp leen man-man ñoo leen bés ba jaaral leen ci yoon udul yoon njub ñu leen lii na leen dale ñu ne ñun kat dañu nekkoon ñun ñu néew kattan néew doole ñu ñu bàle ne xanaa suuf si yàlla si dafa yaatuwul woon ngeen gàddaay mu ne gaañu ñu kat seenu dëkk mooy safara rek kon képp koo xam ne fi nga nekk mënuloo walbati béréb bi ba jaarale ko ci yoonu jub war ngaa tànnal sa bopp boo xam ne béréb bu njub la nga dem fa bu ko defee nga mucc ne nah, aduna day kakkitor la rek mo kak ñoo ñoyam melo yu dul jeex la am bis bu nekk melo bu sax mu ci wenn melo bu la deglo tay benn bis nakaral la ëllëg ñetti yoon waxtu wo xamene sel na sen sa dana nëx nangami sa waxtu wala reeloo ben yoon dana la jeylo fukki yoon kon aduna du xarit bu mbokk ndax amul xarit amul doom lay bànneex bu mu mën a am ci adduna lu mu bari bari lu mu texe texe ci adduna lu mu am am la ko neex lu mu bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu jaamu jaamu bu moomoon lépp lu mu daje lépp lu bëtam tegu moo ko moom itam tawati ndee ci moom balay sukaraate ñëw fàtte bépp bànneex bu mu a jaar lépp fàtte na ko mel ni na musul a am kon lépp lu mu sonn ci jëm ci yàlla daf ciy bëgg rek waxtu wu accès tolloo foofu waaye lépp lu mu jëmoon wala lépp lu mu defoon ci lu dul yàlla waxtu tolloo foofa rëccu ga gën a wex ñikkaani wexe nee na kon ki gën a ñaw ci nit ñi gën a tedd ci nit ñi gën di noobal ci nit ñi mooy ki daw ngir musal diineem ndax nit kat bu nekkoon fii te xam ne alalam ji lu moom dañ koy nangu dana daw ngir bëgg a musal alalam diine nag moo gën a foor alal ndax alal fii rek la yem kon nag lépp lu nit di dawale daw daw di ko rawale diine ci gën a yell nee na waxtu yoo xam ne gis nga boroom xam-xam mu jublu toog ci àdduna na nga ko tuumaal ci sa diine lu mu la wax na ci am sikki sàkk